ay cheikh dañ koy daal di doore ak Souleymane Jules Diop ci dialogue bi fi amoon ba ñenn ñu bari demoon ca dialogue ba Ousmane Sonko bañoon caa dem ñu déglu ki nga xamante ne ni moo di Souleymane Jules Diop lam ca wax ak Barthélémy Dias dafa am ku ma woo un responsable des droits de l'homme saa yu problème dëkk bi léegi rek dama koy woo ñu waxtaan moo tax yenn yenn idées yi man duma ko génne noonu dama ne ko ci mois de join ma ne ko toll nañ fu nga xam ni c'est irréversible Macky kaay ñu waxtaan wax naa condition yii nga xam ne ci la Macky woowee Ousmane ne ko kaay ñu waxtaan man maa waxtaan ak Barthélémy Diaz waaw ñu waxtaan mu ne ma wax nañu lii di di ma ne ko ba président bu wootee du wéet mu ne ma waxtaan naag Ousmane Ousmane d'accord na yow yaa enclenché waxtaan bi entre président ak Barthélémy dama lay expliquer déroulement bi bi ma bi ma bi ma Barthélémy waxee loolu mu ne ma depuis six mois maa ngi woote dialogue ëpp na ko sax kenn faalewu ma bi ma pareeg Ousmane bi ma pareeg Barthélémy dama rendre compte président ma wax ko li ma ci xalaat man li ma xalaatoon mooy dañu waroon a ubbi dialogue Macky woote dialogue ba noppi ne il appelle tout le monde sans exclusive ma yaakaar ne ay niti euh, Sonko dañoo waroon a profité ci loolu ne ko demal ci jaloog bi nga poser sa problème comme l'a fait Khalifa Sall comme l'a fait Khalifa saafara problème yi Khalifa bàyyi sa problème demal wuyu ji bu ñuy régler problème bi assemblée nationale ñu régler ndoo problème yi yëpp il n'a pas répondu tribunal il n'a pas répondu dégg naa ba kenn ci avocat am avocat am yi maître Bathily Samba Demba Ciré Bathily muy saraxu juge bi ne ko dina ñëw mais xëy na nit ñi dégluwuñ ko mais ya a des gens radicaux de toutes parts y compris avocat bu jóge France nga xam ne dafa dem ba bind règle bind livre ci pour mettre les méthodes d'insurrection la théorie du chaos du chaos kooku lu mu mën a xelal Ousmane ñu dugal ko ci loo xam ne pour man impasse la léegi dañu toll ci impasse bu may wax ne nu nunu waxtaan nu nunu jël temps waxtaan bi ma waxee euh, bi ma waxee kooku loolu dama ne ko léegi lenn rek a man a am ci baaxi président de la république ñu ubbiwaat waxtaan mais waxtaan boobu ubbiwaat ko dina jafe bu fekkente ne dañ ko war a tenir dans les prochains mois yi parce que lii des pour élection yi ñëw Aïcha mi ngi noonu jërëjëf Modou Diouf ak Abdou Top Alaaji euh, Barthélemy Dias toogoon na fi wax ne moom moo initié li nga xamante ne ni moo di dialogue bi tey jii suñu toggee dégg ku mel ni Souleymane euh, Jules Diop euh, taxaw wax ni moom moo sàkk li ni mel et que ñi doon xaw a laam-laamee que ni président Macky Sall bëggul discuter gi ak Ousmane Sonko moom tey dafa mel ni dafa leeral li ni mel. waaw xam nga kii ko initié ak kii ko initié loolu moom amut solo. li am solo mooy woote nañ ab dialogue boo xamante ni am na ñu dem am ñu demut ñi demut bokk ci ku ñuy tuddee Ousmane Sonko wuyu jiwut dialogue bi ñi dem bokk ci ku ñuy wuyoo xalifa Sall dem na wuyu ci dialogue bi Souleymane Jules Diop dafa wax ni eh, ñi nekk ak Ousmane dañu ko waroon a bàyyi mu dem eh, bu demee day poser problème am ñu régler problème dafa mel ni loolu bu ñu ko waxee eh, dafa mel ni usmaan Sonko moom dafa am problème loolu mooy li ñu Souleymane Jules Diop di dégtal hmm. maanaam moom dafa am problème usmaan Sonko te dafa jàpp ni ñi ko dugal ci mbir mi déggoo boo déggee dana ñi ko dugal ci mbir mi maanaam dafa mel ni Ousmane Sonko moom ab xale la bu ñuy jël di ko watat di ko dugal ci ay mbir ak di ko génne. maanaam demut ak xelum boppam maanaam Souleymane Jules Diop Ousmane Sonko boobu la ñu présenté ñëw na ne bu ko defee président ci mbaaxaam yem. mbaaxaayam gis nga ko fa mu génn ci ki nga xam ne mooy président. Hmm. yooyu yëpp nag ay jeu de la yoo xam ne ay wax la yoo xam ne bu ko nit ki di wax. Hmm. bul yaakaar ni wax ji xamut li muy peser xam li muy peser moo tax mu di ko mu di ko def maanaam buñ naan loolu dañu lay bëgg wan ne la Ousmane Sonko amul expérience xamut. Euh, moo tax mu topp ñenn ñi ba ñu dugal ko ba fi mu toll nii mu dugg ci benn impasse kan moo nekk ci impasse ndax Ousmane Sonko moo nekk ci impasse wala ndax ñi koy teg liñ koy teg dem ba mënatuñoo dem élection ñoom ñoo nekk ci impasse c'est foofu la problème bi ne problème bi bu ñu jël ñoom li ñu ne tey nga xam ni dañu dem ba dugg ci mbir moo xamante ni. liñ lay déggloo ak di la ko gisloo nekkul dëgg-dëgg loolu mooy li nga xamante ni mooy li xew ci penc mi parce que bu fekkente ni bi tey dañ la bëgg a wax ne la Ousmane Sonko ak président Macky kan moo ci nekk ci impasse kan la. mais ñenn ñi dañu jàpp ne Sonko moo nekk ci problème parce que moom la ñuy jàpp tëj jël ay ñooñam tëj jël parteem tas. def ay affaires yu nga xamante ne nii il faut moom mu dem jàkkaarloo président bi pour mën a waxtaan. waaw xam nga liy tas parti ak liy tax parti di ne. Hmm. loolu du ci nit ki maanaam yoon moo koy santaane ndax ni ñu tasee parti bi ndax jaar na ci yoon ndax li nga xamante ni bi tey moom la ñuy àtte ak li ñuy dogal ndax jaar na ci yoon wala jaarut ci yoon hmm. c'est que bu fekkente ni bi jaarut ci yoon rek. Hmm. lan mooy manipile yoon ba muy doxalee jëf yi noonu xam nga tey barki Demba Njaay dafa am loo xam ne xew na fi. mu am ab juge bu àtte ca Casamance. jox Ousmane Sonko dëkk. ne lii ñu ko def waruñu ko ko def. Mm. nañ ko delloowaat ci mbir yi. ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu waxoon nañu yoon lañu nangu yoon la ñu gëm yoon lañu ñu kii ñooñu ci jëm seen jëmi bopp lànk na jëfewuñu ba noppi daa dee dem cour suprême bi ñu demee cour suprême cour suprême delluwaat àtte bi yoon ci boppam moo am ay jafe-jafe mais c'est pas que Ousmane Sonko nit ki moom mooy problème fi moom moo am problème fi mu mm-hmm. toll nii mm-hmm. maanaam ñi am problème mm-hmm. dañuy nëbb seen problème di la wax na la xoolal problème bi nga mujj nekk nii mais nekkoo ci de mais yow pour nga nekkal waa ji ba nit ñi gis ni problème la da nga créer ay problème yu baree baree baree bari yu la topp kon waa ji nekkul ci problème yow yaa ne ci problème eh, ñoom ñii ñëpp tey boo gisee ba tey ñuy wax ne nañ waxtaan moo lay wan ne la dara réglé wut maanaam buñ ñu demee ba ne jaloge nañ ba waxtaan ba pare bu ñu fa jógee lépp dafa war a réglé donc ñoom xam nañ ni dialogue wuñu ak ki ñu war a dialogueel Souleymane Jules Diop maanaam li mu ñëw di avoué nii maanaam dafa def aveu ci kanamu nit ñi te nit ñi seetluwuñ ko li muy wax yëpp amut sens xam li am sens mooy lan. mooy maanaam dafa ñëw pour woote waat waxtaan mooy wane ni kon li ñu waxtaanoon baaxul mm-hmm. parce que bu doon li ñu waxtaan baax na du def émission wala muy wër plateau yi di wax naan nañ waxtaanaat nañ ubbi waxtaan waxtaan wi moom moo ko gën a soxla xam nga Ousmane Sonko dafa def benn mbir moo xamante ni mbir mu am solo boo xamante ni bii ñoom ñëpp daf leen a jaaxal. muy lan muy fàtte boppam jiital keneen maanaam pour wane ni mbir mi du man xam nga boo seetee. dafa am loo xam ni dafa am ci pénc bi ñu gis ko ñëpp loolu lañ jàppoon ni noonu la yëf yi di demee muy opposition di pouvoir li ñu jàppoon mooy xalifa ñëw na fi ñu galgal ko bàyyiwut benn candidat dem ci li nga xamante ne bi mooy élection mujj gi dañoo jéem a jàppale ñeneen Karim Wade ñëw na fi ñu galgal ko bàyyiwut beneen numéro 2 boo xamante ni bii mooy dem. tey Ousmane Sonko ñu galgal ko pour ñoom même scénario yooyu mooy répété wu maanaam du bàyyi benn numéro de far Ousmane Sonko nag am numéro am am am ñeneen ñu mu proposé non seulement proposé wul kent mais proposé plus de juróomi nit donc nag loolu musuñu xalaat ni lu mel noonu nit dina ko def xam nga lu tax maanaam ñoom fi ñu toll ci nguur ak fi ñu teg nguur moo tax. suñu xalaat ni lu mel noonu nit dina ko maanaam ñoom bu ñuy ànd ak yow it dañuy bëgg nga jiital leen rek mais yow du ñu nangu mukk nga jiitu leen c'est que problème boobu la am tey jii nan lañ mën ñoom nu ñu mën a comprendre nan la soo ko mën a ñëwee ak li ko suñu borom defal yëpp mu jiital Bassirou Diomaye Faye mais loolu waru leen bett puisque Sonko yàgg na taxaw di wax ni projet bi du man waaw ah, mais gëmuñu ko xam nga gëm mooy li am solo nit ki mën na yàq nga ne day sóob rek. Hmm. day sóob rek lañ nekkoon ba tey nag loolu nekk dëgg-dëgg lu ne donc nag xam nañ ni waa ji sóobut hmm. maanaam Sonko li mu teg nii maanaam dafa dox pion boo xamante ne bi ñoom ci seen jëmmi bopp dañu am problème parce que danañ leen dul man bu dul man rek di keneen waaw loolu la teg fi mu toll nii hmm. te lii mu teg ñoom xam nañ ni jéggi ko yombul parce que dafa am lu sunu borom nag defal Sonko ci jamono ji. joxe ndigal woteel leen ma jigéen ñu voteel ko. loolu moom léegi ñoom yëg nañ ni Sonko am na ko te nag mën na koo def ci ku ko neex. Mhm. loolu mooy seen jafe-jafe. <laughs> am na solo.